ikmatun lii baati ikam la kaana aliyun karamallahu wajhahu am na benn bis seydna aliyu yal na yàlla teral jëmmam jë saata yow min ca bis booba rek yam si seydna aliyu ma ngay doxantu fii siqaaqil madinati ca mbeddi madina ya fa wajada tabiban mu fekk ab doktoor yatiibu naasa ma ngay faj nit ña fa xaalaloo aliyun seyna aliyun ne doktoor ba karamalaahu wacehoo yal na yàlla dollee teral jëmmam jëmmam seyna aliyu amiin mu wax doktoor ba yaa tabiibu yow docteur hal ndax daka nekk na fi yow xam-xam boo xam ne dawaahun dang koy faje li zunoobi ñeel wakkaar ya docteur ndax xam nga luy faj bakkaar fa xaalaluhoo docteur ba ne ko naam waawaaw xam naa de yaa sayidi yow sama sang bii di Seydina Ali xam naa kay luy faj bàkkaar xaalaloo aliyun karamala wacceho Seydina Aliyu yal na yàlla teral jëmmam ja ne ko wa maa huwa yaa tabibu ana loolu di faj bàkkaar mooy lan yow docteur xaala lëhoo docteur baa ngi koy tontu ne ko aqdim di dem ilaa waadil imaani ci xuru ngëm yàlla demal foofa wax far minhu urooqa niyati boo demee ba ca xur wa nga gas fa reeni yéene wa awraxa na daamati nga witt xobi reccu wa anwaaral xilmi nga wut fa tóortóoral xam-xam wa samaraatal xusooxa nga wut fa meññentam ragal yàlla wa xusoora tawaaduhi nga wut fa xasam toroxlu wa asxaaquhum nga boole leen dëbbe bi mihraasi tawbati ci gën ak tuub wa axlituhum nga boole leen jaxasee leen bi maahil ayaa i ci ndoxam kersa wajhalhum nga boole leen ñuluge leen fi xidri rajaa i ci cinal yaakaar wa awxit taxtahum nga taal caroon cin la naaral xawfi sawaraaw ragal yàlla ci dekkek bàmmel sawaraaw ragal yàlla ca dund ak barsaq sawaraaw ragal yàlla keroog bis pénc wa asrabhum nga naane ko bi kasi sabri ci kaasi muñ sëriñ Tuubaa nee na xaala lahu sa sadaxta yaa tabiibu Seydina aliyu daal di tontu docteur ba ne ko ah, yow docteur lii nga wax day dëgg la kon faw ku bëgg yàlla jéggal la say bàkkaar muy jàngoroy bàkkaar képp ku ko yëg saw yaram te bëgg sunu borom jéggal la ko faw nga respecté onze point yi ñu lay waaje limal mooy liñ doon boole léegi arab beek wolof bi di ko wax bii yoon nag dañ la koy defal wolof képp nga xam ko onze point yaa ngi nii gëm yàlla moo jiitu ak ban yéena ju sel moo ca topp ak ban ricc loo defoon te neexuloon yàlla ak ban jàng xam-xam bu sel buy tax nga man faratayaak sune ya ca ñeenti ponk diine ya di ko jëfe ragal yàlla ci sab xol ak ban toroxlu mooy suufeel sa bopp ak ban saxoo tuub foo toll yaa ngay jéglu sa boroom ak ban boole ca lewet sëkk lewet gu mat sëkk nga boole ko ca ak ban yaakaar yàlla te bañ a yaakaar mbindeef ak ban ragal mbugalam yàlla ci biir bàmmeel ragal mbugalam yàlla keroog barsàq ragal mbugalam yàlla keroog taxawaayu bis ba ca mujj nag mooy ban saxoo muñ lu yàlla dogal mu neex la lu yàlla dogal te mu naqari la nga muñ ko lépp loo xam ne boo ko amee muy wërsëg nga jëf ci lay jural bàkkaar nga muñ ba neex booba te joxe loola ci luy jur ngërëmal yàlla lépp loo xam ne sunu borom dogal na ko mu di ñàkk gu tar mu di lu ci yow nga ko ku saxoo onze point yii yow di nga bokk ci ña nga xam ne seen jàngoroy bàkkaar yàlla dina la ko saafaraal wasalaamualeykum